tey Saliou ma taxawaat ak beneen ndaanaan na nee naa tey fii ay ndaanaan rek artiste comédien artiste musicien ñoo fi daje ki ma taxawal ki ma toogal tamit kenn dootu ko présenté muy Tane Bombe macha allah borom ndogu li Tane nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna si. Bakka nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay di nuyu waa nooy moytoo sa noonu yëpp. Mhm. di kontaan ci yéen. man dama leen namm sax. ñoo la raw ñu koy wax Ablaye Sow grand ko daaw fekkee déwén daaw fee laa la fekkoon ci gazon bi nga ne ma affaire bi day law dafa mel ni kon yàlla nangu na ñaan bi. waaw dëgg la xam nga loo xamante moom am nga expérience bi presque sept ans ci ren. Mhm. Euh, pour man day a law daal. parce que ku gis am na par rapport ak daaw. ñu gis la tey ci stade bi nga ñëw teewee si match amical bi nga xam ne day am ci diggante artiste comédien ak musicien chaque année. waaw ñoom lii mooy wane ne rek Sénégal benn bopp la comme ni ma koy waxee. Mhm. Euh, artistes yeeg xam nga ñi nga xam ne ay comédien lañ ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi danoo war di kaf di ree di demalante di ñëwalante comme li tey euh, tey nag mu neex ma trop ma gis fi ñëpp kontaan ci ñëpp li yëpp ci marché bi ni nga ñaqee nii waaw xam nga rek xam nga musiciens yi ñoom dañoo mën a wax waaw dañ leen a gagné ñan ñoo gagné artiste comédien yi ñoo gagné musicien yi kon waaw paré guñu de kon yéen a gagné nii waaw paré guñu paré gu leen def ngeen ñaari yoon mi temps da paré guñu il faut ñu dugal leen 4 wala 5 dañoo mën a wax 4 wala 5 kon daal da ngeen a bëgg yéen ñëw dóor leen ba pare ñu wëlbati ko ñëw woy noo gisee initiative bi nga xam ne chaque année euh, ñoo artiste yi Guédiawaye ñu ngi dajaloo di invité artistes yu nekk Sénégal yëpp ñu ñëw di ko def waaw xanaa di ci kontaan rek xam nga ah. da ci sant yàlla parce que lii mooy wane ni ñun artiste comédien ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mm-hmm. lenn rek moo ñu boole muy bégal doomu aadama yi mm-hmm. waaw te lii da koy firnde mm-hmm. à chaque fois dañuy def ay rencontre ñuy daje ñun ñëpp vraiment mu nekk lu positif mu continuer voilà chaque année ñu koy def waaw. Euh, wax dëgg fa yàlla euh, am na mbégte bu baax nag yéen ngeen ñëwaat fi ren. Mhm. yàlla nañ fekk déwén. ci kàttanu yàlla di wax ni lii dafay gën a boole ànd comédien yi. Mhm. parce que ñun ku xam métier yëpp xam ni comédien yi ñoom ñoo ci gën a déggoo ñoom ñoo ci gën a ànd. Mhm. ñoom wax dëgg yàlla jàmm rek lañ sekk looloo tax tey bi ñu ko defee nga gis ci comédien yëpp. ñu sekk ko musiciens yi nag ñu leen di remercier. parce que vraiment am na ñoo xam ne wuy si nañ ñu. te loolu moom mooy ànd loolu mooy àdduna parce que àdduna kenn waru xeeb kenn waaw ñu ñëpp ay jaamu yàlla lan ay doomu aadama lan tey kenn ku ci nekk euh, kaas yee wute rek waaye boo xëyee yaa ngi guux kon am na mbégte bu baax a baax ci ñi nga xam ne ay Sidi Diop ay demb a Guissé ak ñeneen ak ñeneen waaw bu nu bu neexoon ñu ñoo di star mm. mais xam na ni kenn rek mooy star muy subhanahu wa moom mi nga xam ne mooy dundal mooy ray. <laughs> tey nag dama doon coaché quoi. mais man moo ma jaaxal dama dem bala koy laaj rek nga wax yow gisuma la. parce que dama bëri xam-xam dama doon sama rase yi dama ko dagg sax. Ah. waaw mais tey coaché rek laa bëggoon nekk tey. Euh, tey boo doon lancé message wala ngay dolli dara autorité yi pour ñu ñëw euh, jàppale artiste comédien yi lan lay doom waaw loolu ñoom xam nañ ko. je pense que am na loo xam ne. kenn du wax nit ki ñëwal. Mm-hmm. ñun fab de façon bu ñëwee dinañ dem bu ñëwul dinañ dem. Mm-hmm. mais ñoom li ñu mën a xam mooy ñun ci réew mi lañ bokk te facteur de développement lañu. Mhm. waaw ñi ngi ñu ngi liggéey bu baax. Mhm. xam nga di di di def ci Sénégal di def ci askan bi. Mhm. kon bokk ñoom ñi ñuy seetaan te ñi ñuy gis te xam nañ waaw dañoo war a ñëw ci ñun. waaw du ñu dem ci kenn nag. artiste comédien ñun du ñu dem ci kenn mais ku ñëw ci ñun. boo ñëwee dañuy fekk bu soobee yàlla jàmm lañu am parce que ñun Sénégal lañ fi nekkal. dëgg la waaw ñu ngi jaajëfal ñëpp. waaw léegi léegi looy wax Elvision. en comédie nag.

xol setan El Vision képp koo xamante ni aussi ci people ngay séntu tamit da nga xol El Vision El Vision da forever peace and love. kol bi nga ni ku ko may. wa kol bi sama kolu papa la. koy naa la ku ko may. <laughs> ah ya ko wax de man waxuma ko de. <laughs> kan mo la ko may la bëgg kol bi sama kolu papa la fala yam. El Vision Média waaw di len sante di len geureum di leen wax li lu nice la. Mm. yalla na yalla def ni fi daje at mu ne. amin ñu bokku lepp merci beaucoup. di content ci yéen rek. yéen moom ngërëm da na a ñeel damaa kontaan ci yéen mhm. parce que li doomu adama yi soxla pour xam ko yëpp dinañ leen koy xamal di leen yee xam nga ñuy gën a yeewu ci àdduna di gën a xam li nga xam ni vraiment moom la doomu aadama yi soxlaa xam kon maa ngi kontaan ci yéen bu baax a baax. maman Aris nee na da nga doon sang ay xar piki. waaw loolu la mu wax mais moom baal naa ko <laughs> moom baal naa ko nee naa ko baal naa la. <laughs> ñu lay jaajëf.